asalaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu te di leen ñaanal déglu bu jàmm fii ci émission yoonu njub jërë ngeen jëf ci seeni bataaxal nu ngi am yaakaar ne kenn ku nekk ci yéen jot na tontam xarit yu ñu déglu la ko dale ca ndoorteel cosaanu nit doom aadama yi yëgoon nañu ne dañu am soxla ci ku dox ci seen diggante ak yàlla di leen faramo ndaxte fépp fu nit mën a nekk ci àddina leer na ci xelam ne yàlla am na te dafa mer ndax tooñ gu ko doom aadama tooñ noonu nit gis ne dafa war a am pexem dalal merum yàlla kon nit gisoon na ne ki war a mën a dalal merum yàlla dafa war a nekk ku am cofeel ci nit ñépp te am gëdd ca kanamu yàlla wante boobaak léegi seetlu nañu ne ay ramukat ak ay njiit yu bare feeñ nañu ci àddina waaye saa su ci nekk yooyu njiit wone nañu lu tas yaakaaru ña leen tegoon ci seen diggante ak yàlla kon mbokki deglukat yi loolu moo sabab sunu gëstub tey bi jëm ci ràmmkat bi nit ñi soxla bu nu jàngee ci kàddug yàlla dinanu gis ne yeesu kirist mooy sëriñ bu mag bi ramukat bi nit ñi soxla moom la moom tànnul woon boppam yàllaa ko tànn ndaxte bind nañu ne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 li mata leeral mbokk yi nuy déglu mooy ni muusa niroog yonent bi mu doon wax di ramukat bi mu ngi jëmoon ci seeni kéemaan ak ci li muusa goreloon mbooloo ma ci loxoy na wante ci dëgg-dëgg ramukat bi moo sut muusa fuuf sax seeni liggéey sunu leen di tëkkale ci misaal rekk lay yem dafa am bés yéesu ànd ak ñett ci taalibeem di Pierre Saak ak Yowaana ñu dem ci tundu kawe te wéet ba ñu fa nekkee jëmm yéesu soppeeku te ay yëram weex tàll ba jaaxal leen kàddug yàlla nee na noonu ñu gis yonent yàlla ilias ak muusa di wax ak yéesu pierre daldi na yéesu kilifa gi bég nanu ci li nu mën a teew fii nanu defar ñetti mbaar benn yow benn muusa ak benn ilias fekk xamul lu muy wax ndaxte tiitaange jàpp na leen ñoom ñetti ñépp noonu niir muur leen te baat jibe ca niir wa naan kii mooy sama doom ji ma bëgg ci moom laa amee bànneex déglu leen ko ci saa si taalibe yi xool waaye gisatuñu kenn lu dul yeesu rekk yéen ñiy déglu ndax dëgg ngeen li Pierre wax yéesu mu ne kilifa gi nanu fi defar ñetti mbaar benn yow benn Musa ak benn Ilias loolu dafay wone rekk ne Pierre xamagul woon ci dëgg ne Yeesu moo sut yonent yi mu ko doon tëkkaleel ab diir gannaaw ga nag Pierre mujjoon na gis bu leer ne yéesu mooy ramukat bu amul dend bi moo tax gannaaw gi mu mënoon a wax mucc amul ci keneen ku dul ci ramukat bi yéesu ndaxte ci ron asamaan amul weneen tur wu ñu maye ci nit ñi wu nu war a mucce te yonent yépp seedeel nañu ko ne ku ko gëm yàlla dina la baal say bàkkaar ci turam xarit yi ñuy déglu ci jamono ji nu nekk am na itam ñu yaakaar ne ramukat bi moo yem ak yonent yi wala seeni njiit sax waaye ñooñu war nañu déglu li leen yàlla di wax muy limu waxoon keroog ca tund wa ne kii mooy sama doom ji ma bëgg ci moom laa amee bànneex xam ngeen ne deesul yemale doom ak surgay baayam ci kër gi loolu leer na naka noonu it mëneesul yemale ramukat bi ak yeneen njiit yi ak lu ñu am am daraja ndaxte kan ci ñoom moo dem ba tuur deretam ngir nit ñi amul du kenn ci ñoom moom rekk tuur deretam ngir raxas baakaare àddina kon nan lañu mën a yeme ak ramukat bi moo tax nag yàlla ne déglu leen ko maanaam déggal leen ko bi ramukat bi feeñee ci biir xeetam indaale mucc gi ñu ëpp ci ñoom dañu ko won gannaaw foofa nag tàmbale rek la woon ndaxte wolof njaay dafa wax ne mbey ci sa wewu tànk kon terewul yàlla jëmale kanam pexeem mi mu tëraloon ca njaalbeen nga ngir musal àddina sépp amul xeej ak seen noonu la yeesu ramukatu àddina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 kon deretam moonu mën a selal ci sunu xel mi nu doon yedd ndax jëf yu jëm ci dee ngir nu mën a jaamu yàlla ji dund loola tax mu nekk ramukat bi ci wàllu kóllëre gu bees gi ci diggante yàlla ak nit ñi ngir ñi yàlla woo ñu am cër bu sax ci kaw te mu digoon leen ko ndaxte kirist dee na ngir jot ñi jàdd yoon mbokki déglukat yi loolu kàddug yàlla wax leeral na ne rammukat bi njariñu boppam taxu ko jóg sunu njariñ ak sunu tawféex ak taxa jóg ba tax mu ne dafa ñëw te du ngir ñu nekk ay surgaam waaye ngir muy seen surga ba joxe bakkanam ngir njotuk ñu bare ci lu wér yeesu mooy rammukat bi jara dénk sa bopp moom waxoon na ne samay xar dinañu dégg sama baat xam naa leen te ñu nga may topp dama leen di jox dund gu jeex duñu sànku mukk te kenn du leen jële ci sama loxo baay mi ma leen jox moo gën a màgg lépp te kenn mënul jële dara ci loxo baay bi yow miy déglu ban ràmmkat nga bëgg a wóolu ràmmukat bi xamul ci loo nekk sax wala ràmmukat bi la mën a gis ca fa mu toog di la ñaanal ak a toppatoo tont li amul sikki saaka yaakaar naa danga bëgg a topp yéesu mi ràmmukatu àddina bi yàlla tànn moom soxlawul sa dara dafa lay may dund gi ba noppi fa mu toog ca wetu baay bi mu di la sàmm ak a wattu sa ngëm loolu am na solo ndaxte xam ngeen léeg-léeg seytaane dem ba bëgg a jekku taalibe kirist bi daaneel ko sax ci bàkkaar waaye li wér mooy su loolu amee taalibe kirist bi du ci mën a bég xel mu sell mi dëkk ci moom dafay tiis noonu taalibe kirist bi du mën a sax ci bàkkaar bi dafa koy daldi réccu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 yowaana kenn ci ndawi yeesu yi rax ci dolli ne samay doom maa ngi leen di bind ngir ngeen bañ a def bàkkaar waaye su kenn defee bàkkaar ba tey am nanu ku nuy ràmmu ci baay bi mooy yéesu kirist mu jub mi moo joxe bakkanam ngir dind sunuy bàkkaar te du sax sunuy bàkkaar rek waaye yu àddina sépp kon nag sama waay yéesu mooy sëriñ bu mag bi di wasiila bi nga soxla moom rekk doy na ci yàlla kon wareesul teg keneen sunu digganteek yàlla ndaxte kàddug yàlla nee na jenn yàlla képp moo am ak benn rammukat képp diggante yàlla ak nit ñi di nit ki yeesu kirist mi joxe bakkanam ngir jot ñépp su fekkee nag ne yéesu doy na ci yàlla lu tax du doy ci yow bul dëgër bopp mel ni maam ya bañoo na doyloo ramukat bi doylool yéesu ramukat bi muy ki lay jokkale ak yàlla loolu mooy tànn bi gëna am maanaa ci sa dund bul werante jëmal kanam ñi gëm yéesu yàllaa ngi leen di wax naan yéen jege ngeen tund wi ñuy wax siyon di dëkku yàlla ji dund muy yerusalem ga ca asamaan jege ngeen it junniy junniy malaaka yu bég a ba daje di màggal jege mbooloom taawi yàlla yi ñu bind seen tur ca asamaan jege ngeen yàlla jiy àtte ñépp jege ruuwu nit ñu jub ñi àgg ci mat jege yeesu rammukat bi sàmm kóllëre gu bees gi jege deretam ji ñu wis te deret jooju li muy yëgle moo gën a neex li deretu abel doon yëgle kon yow miy déglu gisal nga sa bopp ne jege rammukat bi maanaam gëm ko tey topp coobareem mooy tekki ne yàlla dafa lay jàppe ni ku sell bu fekkee sax neneen la la nit ñi di xoole mbaa ñu lay tuumaal lu mu mën a doon li am solo jàpp ko bu baax mooy nii la yàlla ci boppam di xoole kon boo gëmee ramukat bi dinga mën a jege yàlla aji sell ji ndaxte bu boobaa dinga sell ci kanamam amul kenn ku mën a jege yàlla te selloo te ramukat bi toog ci ndeyjooru yàlla rekk mën a tax nga sell ba mën a jege yàlla fàttalikul ne yéesu mooy ramukat bu wóor bi dul wut njariñu boppam moom sunu njariñ rekk ko mësa soxal ci suuf ak ca asamaan guddeeg bëccëg bàyyil xel itam ci ne ramukat bi mën na la wàllu ci lépp ndaxte gannaaw sonn na ci nattu yi mu daj mën na dimbali ñiy jaar ciy nattu te it sëriñ bu mag bi nu am di yéesu rammukat bi du ku mënula bokk ak nun sunu naqar moom sax far jaar na ci nattu ni nun ci bépp fànna waaye deful bàkkaar kon nag mbokki déglukat yi fii lañu yem ak yéen di leen jox dox daje ci émission bi ñëw ndegam neex na yàlla su ngeen amee laaj ci li nu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 saint na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li kàddug yàlla wax ne jenn yàlla képp moo am ak benn ràmmkat képp diggante yàlla ak nit ñi di nit ki Kirist Yeesu mi joxe bakkanam ngir jot ñépp